fils la booy bi day ñëw bis bu ndaj kër gi fanaan léeg-léeg mu yendu ah? guddi bu fa ñëwee butéelu lem bi rek doo xool sama bopp laa bi ci kaw benn butéel lem bu su ñëwee butéel bi laa koy sotti xale bi li ma koy woon ku ne moytul dañ lay sàkk de hmm? 110 laa koy jëndal rek maa ko moom fanaanoog moom def lu man 110 kese li ma jaaxal kay moom mu ngi nii jaaxal yaa ngi toog mu ngi nii toog yaa li jëntiwu la talu la sax bi dem ba xam ni daf maa lu ko ah, maanaam sawaratuma ci moom mu dem ba yëg loolu nag léegi dafa may romb di ma aj xamul ni maa ko gën a jëppi ah, ah bébé ah, ba. non toogal euh, xam kii. non chéri kii xam nga fi laa fekk ci rang bi. comment. waaw nga ne xam nga kii. non attends xaaral ma pare xool dinaay xool de. may ma tuuti rek. non ça doo yow laay waxal da xam kii wala xamoo. ok. sa nag <laughs> loolu du question. waaw ah, mais tu te fous de moi ou quoi. yow maa ngi toog fii nga topp sama jabar di di yàq deram naan day ñëw sa kër day def lii day def laa ma lay laaj nga naan waaye loolu question. non loolu philosophie la philosophie <laughs> maanaam sa jabar dafa baax dafa bon dafa yaru tabe mun a toppatoo ay nit mun a dox mboq égal dafa baax. Ah, mais yow kii sànq ba léegi maa ngi toog fii lu mu waxu ci lu ñaaw da ko fàtte. yow da maa xam yow. maanaam danga maa xam ak sa bakkan bu gudd sa toog sikkin danga maa xam. dinaa la pelante. pelante ma balaa nga may pelante ma pelante la yow. bu doon am yow mi la ñuy pelante yow mi toog fii di fen góor gu toll ni yow. yow xanaa kii même bu doon ne sa gel la sax nga xamal ko lool sax war nga ko mën a nëbbal. sa waay fooy waxee. déglul nga ñëw ba ci hôpital bi di yàq dërëm nii di duul. jigéen ñi sax léegi dañuy daw góor ñi ndax sa ndax sa genre gi. ndax léegi lu ngeen leen xamal siiwal ko. xool ko mais respecteel sa bopp góor nga. waaye dafay am daaneel. daaneelu ma. xanaa bala maa daaneel nga. kii li ko dal du jàmm fen ngay def sa bobu ndaw bi yow duggu ñu la ju bari wax yow nga am bari ngeen wax sa ni nga kan, mel c'est dama am ay yuur yu nekk sama biir bopp dañ koo suudé yow donc da nga feebar nii te faj te doo dem faju ba lii de boy li affaire ñàkk fayda la de ngay naa fi yow dara jotu la bonkalum jëm toog ni gaal kan, yor say liir xam lu ngay def nga fi ay dara feebar la dara nga baal ma wax man mi ma wara wax ki fen ñu reuy yim fi nekké sank ba tay ma ngi tok fi diko deg yow mi man may wax ak yow fii laa ñëw toog jàkkaarloog tax yow yaakaar na né allo xaar nga naan yow no ngay fen du sa az yow ki lum la wax deug la sa bakken bu gudd nigi leem yow fi ne ni dañ la wara opérer ndax li daw sa yaram bi yaakaar naa deret bi daw fen la eh. yow febaru fen nga am ndax sa bañ bi metetul de sa ngaam yi li ciy circulé fen kese la xam naa ne li nga jot a génnee moom boo ko génnee fii lóor waaye duma ci wax lenn nag te mun a koo dem. yow la may wax doy na yow li nga fi wax yépp yow li nga fiy wax yépp ci fen ndaw si man dama koy jàpp ndaw si dama koy def li te ndaw si defoo ko tus nga ne lem laa yore di diw ndaw si yow mosoo diw kenn. fenkat bi nga doon góor guy fen war a dem liggéey waaye nii ngay def sañ sa ba jeeg teg la sa tànk ñu teg la intellectuel te doo dara max mu naan preuve euh, euh, preuve euh, philo la yow foo toj yow ban université nga jàngee yow billaay yaa bon sa nopp yu gudd. xam nga lu ma lay yëgal yow dañ lay consulter ñëwal fii. yow eh, eh, eh jugal yow yow fenn sa biir yaram la nekk di circuler yow jugal yow jugal su ma la bàyyee wàcc ngay def. <laughs>